Ousmane suñu collègue député la nit ku julité la nit ku baax la seq nañ jàmm mi ngi liggéey réew mi kooku yaakaar naa askan yépp ñoo war a taxaw tey pour jàppale ko si li nga xamante ne mooy complot bi ñu ko def te complot boobu xam naa si lu bare bare ndax bu fekkonte ni lu nit xam wax ko rek Macky Sall fi ñu tase 23 heures Almadi ci buntu mairie présidence buntu bu njëkk bi. xam na xam naa te boobu Marème ànd ak moom. président <laughs> li nga wax grand eh, kii. Macky Sall fi ma teseeg moom deux mois yi si ginnaaw Méridien wetu Méridien présidence à vingt trois heures mu yor am bu ndaw boobu noonu xam na xam na te askan war nañoo xam loolu. moom moo doon dawal. am na ñu mu àndaloon. Hmm. waaye li mu wér rek nii du lu ñu ku nekk loo xam wax ko waaye nag kenn ku nekk am na loo xam.